pare nañ rek ngir def ab dox ñaxtu ngir seen jiti di leen di dégg saafara seeni jafe-jafe. li ñu bëggoon nak moy dee maintenant tay gis ngeen baare nañ tali bi. Mhm. dem bék dikk bi gis ngeen ni dara doxatul té dañ koy continuer nak ndax lutax ñukoy continuer pare wuñu pour ñuulalal ñu tali bi ba sunu yaay yeeg suñu papa yeeg ñëpp sunu doom yeeg sunu rak yi ñëpp nekkat ci jamm duñu bayyi ki di maire bu Mbour dal dinay tew ci bërepp ba waye waxul ben yon ak ñom na mu ñëwé nonu la bi mu ñëwee nag dañu pare woon pour déglu ko ñëw na toog xëy na la mu gis jaaxal na ko jàppul woon ni tey bu ñëwee dana fekk mbooloo mu toll nii. fekk na fi mbooloo mu engagé mënatu ko gérer bëlëfe na dem na mais ñun nag combat bi du combat maire dem na li ñu bëggoon am nañ ko déedéet bu fekkee li ñu bëggoon am nañ ko. chauffeur si nag dañoo am jàqare lool ndax ñoom. seeni woto rek moo ci yàqu. man li ma dépanne sama oto euh, si y'a deux semaines xaw trois semaines ëpp na quatre-vingt mille parce que Serigne Babacar si facture yaa ngi man lépp lu waa koñ bi jot ñun ñu koy jot suñu oto mu ngi koy jot kon loolu dafa metti chauffeur bu amoon la ka neex day dawal ci goudron bi kuk du changer organe. deux mois trois mois doo changer organe mais chaque semaine nga changer organe. chaque semaine nga changer te ñu ngi dagg fiche mairie. lampe taxi droit raisonnement xam nga fay 4000 francs la fay droit raisonnement li amul fenn di ñi ci mbir mi ndax bi tali di dégager ba sax jural ay jafe man amna naa ñetti employé yoo xamante nañ ndax dañoo asma ku mel sama bi muy Mati Taal dafa asma weeru koor yëpp liggéeyut ndax poussière bi metti na lu ñu duñu ko mer lu wax def. lu wax du ko def ñu nag sonn nañ saa yi nañ suñu liggéey yi yàqu nañ kër yi yàqu nañ fii ñu wër tali bi dañoo sonn ñëpp sonn nañ saa yi nañ feeg meer nag defarul tali bii ñuulal ko ñun duñu bàyyi suñu marche ñu daal loolu la ñu wax ca fi ñu jàpp duñ ko bàyyi. sonn nañu depuis 2000 ñu ngi fii ba léegi tali bi mel nii musul baax musul bu euh, euh, euh, nekk si dara maire bi bu ñu demee moom mu ne ñu ñun ñii maire ñun maire yi ñun ñoo njëkk dem sa ñoom ñun màgget yi ak paa yi mu ne ñun taluñu. man sama taabala ngi ni moy parasol bi jaayatuma daara lu jar ngir fonde bu xonq luma jaay mu xonq do jar luma jaay do do jar diabétique la ma nekk temps hypertendu sonn naa perfusé wuna ba sonne barki de mbo ndjay rek la guéné hôpital salam le gërëm na talibi ay yoon yu yesu ñu tambali fep ci département de Mbour ba légui rek ben mënu seen nopi lolu sax mëna jur jafé jafé ci askan wi ak nawet bi ñu jëm.